الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال سياق في بيان أحكام الطلاق والعضد والنفقات في هذه الآية borom bi subhanahu wa taala dañul di ñu leeralal attey sëy ak idda ak dépasse bi nga xam ne ki am doom ki ñu jural doom ji war na kaa continuer di ko jox ki ko jural doom ji tey ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ba tey ñu ngi jàng lenn ci ay atte yu bokk ci sunu dund comme niñ ko baaxoo di wax mooy alquran dafa ñëw pour jullit ñi xam fu ñuy teg seen tànk jullit mooy mbindeef moo xam ne ci kaw suuf warul làmbatu lu nekk alquran jàngal na ko lan moo war a nekk taxawaayam lan moo war a nekk jëfam ak jubluwaayam mu ne anna ala man maata alayha zawjaha tey ñu ngi jàng attey ndaw soo xam ne boroom këram dafa faatu gis ngeen waxoon naa ne démb mbiri li ko takk rek jeexalu ko même bu waa ji dee nekkul rek sëy bi jeex na tey waa ji dee na rek sëy bi jeex na tey déedéet loolu sax lislaam def ci wax mu ne ku fa jëkkëram faatu walla ñu fase ko walla mu fàddu kenn gisatu ko xabaar dikkal ko moom ndaw si ñu ne ko sa jëkkër dafa faatu bis bi xabaar bi jikkee ci la ndaw si di tàmbalee tënj bis bi waaw loolu mooy li jumhur dëppoo du xaar ba suba naan naa ko wax samay mbokk ba ñépp yëg ko ma doog a ténj déedéet léegi léegi la xabaar bi yegsi ñu ne ko sa bërëm kër faatu na fi mu ko déggee fa lay duggee ci biir néegam commencé muuru bu doon fase la it fiñ ko ne fase naa la fa lay tàmbalee jël idda ci bis bi ci minute yi xabaar bi duggee ci noppam kon fase ak tënj ma ngay amee ca bés bi information bi duggee ci noppi ndaw si léegi nag koo xam ne jëkkëram dafa faatu ay at tolloog atum lëmm ñu ñëw ne ko sa borom kër dafa faatu mu ne kañ ñu ne ko mën na léegi ñaari at kooku lu muy def day tënj tënj bi jaax na dootul tënjati dootul jël idda parce que jeex na du tënj du jël idda parce que passé na mu ngoog su ko defee mbokk yi mbokk jullit yi déedéet day tënj parce que ay jeexagul tënj ñaata la ñeenti weer ak fukki fan su dee at ëpp na ko wala dafa manqué fase idda bi ñaata la ñetti laab bu dee at passé na te yooyu dafa am hikma yu ci nekk mooy pour ñu xam rek ndax ndaw si ëmbul la ndax dara nekkul ci biir bi su ko defee ñu ne kooku soxnaam faatu waa borom këram faatu dana xaar ñeenti weer wa achara layaali ak fukki guddi in kaanat xurra bu dee gor la awi nisfil mudda in kaana in kaanat ama wala mu toog ñaari weer ak ñaata fan juróomi guddi bu fekkee jaam bu jigéen la moom lañ naan jéebéer ama moom lañ naan jéebéer bu dee ku góor ki moom lañ naan abd mooy jaam bu dee ku jigéen ki moom lañ naan jéebéer nee na falaatata jàmmal waaw ndaw si loolu ñu ne ko da ngay toog ñeenti weer ak fukki guddi lu ci lislaam wax ndax day toog noonu rek toog ni ko neexee wala moom ni mu bëggee wala ay aadaam téngi ci Sénégal daanaka beneen monde la beneen monde la ndaw si di nekk dañ koy xottil façon yére ay dàll muy takk kurus ci loxo bi yor paaka yor salaan ah di yalwaani di sangu vendredi ba vendredi du tëdd ci lalam dañuy wàcce matla bi buy toog day tàllal tànk yi suy wax day bank baaraam yi du droit joxoñ du seetu ah yii ma wax yëpp du ko def du tëdd ci kaw lalam ah ci suuf lay tëdd bu toogee day taalal tànk yi di ko bank suy wax ak nit ñi nii lay def amul droit joxoñ vendredi ba vendredi ngay sangu ah benn couleur yére ngay sol dañuy dem ba marché jënd ko benn xartum bu dee ca nasaraan ya couleur bu noir ngay sol couleur bu noir ngay sol mu nekk contraire bu fekkee ñoom seen mariage femme bi mooy sol couleur bu weex ku góor ki sol couleur bu noir booy teññ femme bi mooy sol couleur bu noir yooyu ñu sàng la lu weex suuli la couleur bu noir ci tubaab yi lan la ah non couleur bu noir doole la moo tax gis nga président yi costume yi noir oto yi noir lépp noir doole la ah pouvoir la pouvoir la kattan couleur rouge danger la bleu di ngeen defe ne couleur yi ngeen di gis ni couleur nii kese la su ngeen demee ci loge maçonnique yi couleur yi dafa am pouvoir waaw rose noir moo fa ëpp doole chef ya koy sol costume bu noir ci biir rose rouge ndeysaan attention de il faut ñu def attention foo ñu xam àdduna bi nu muy doxee pour ñu rëcc ñun jullit yi foo ñu xam àdduna bi nu muy doxee règle yi ko ad yi ko nit ñi teg noonu yàlla yi dévier bu ñu dévier monde bi di ko jaaral ñoom fi mu leen neex pas fi yàlla bëgg il faut jullit yi xam ko suñ ko xamul lii la ñu continuer léeg-léeg ay yahud wala nasaraan dinañ toog seen saal di ree daan xoola jullit yi ñu ngi naan nangam ak nangam te xool xoola lii ñun ñoo ko moom xoola xoola waaji li muy def xoola kii xoolal na xool li mu sol xool xool xool xool waaw yooyu yëpp nag dafa jar xam li ñu moom ñun ñu jël ko li ñu moomul ñu bàyyi ko ak ñoom ñu ne ndaw si day toog ñeenti weer ak fukki fan ah fukki guddeem lan la ci dul def du ci taaru fala tatajammal du taaru wala tamassu tayiban du laal parfum du cuuraayu wala tataarradu lil xitaab du exposé boppam pour ñu koy labat xam nga tey xale jigéen yi li tax musibaam mooy xale jigéen yi du ñu sol dañuy sol yu yu bon exposé seen yaram jaagar jaagar yi pour lan pour jar waa dañuy jaayu jigéen nag buy tënj du jaayu du xeeñu du taar taaru du sol yu rafet cakkar cakkari yooyu dañ ko ko tere jigéen du ko def suy tënj mu ne ba idda bi jeex yii nii doo ko fi def ba diir idda bi jeex waa est-ce que jigéen bu doon tënj war naa liggéey bu doon jaay war naa jaay waaw waaw su fekkoon ne day liggéey may ñu ko congé day liggéey su fekkoon ne day jaay taabalam amul ko ko mën a remplacer ci lay suturlu ndey lal taabalam di jaay muur muuraayam ndeysaan Sénégal saa yoo gisee jigéen ju muuru xamal ne jëkkëram daa dee waaw jëkkëram daa dee maire boo fi gis muy muuru va et vient xamoo ko woon boo ko rombee ne ko sigil ndigaale te kër ji daa dee parce que du ñu muuru ngir yàlla saa yoo gisee groupe jigéen ñu muuru di dem wax leen ku dee saa yoo gisee groupe jigéen ñu toog ci benn suufu baas muuru ñoom ñëpp boo ñëwee waxal ku dee waaw boo ñëwee laajal ku dee ñu ne la borom kër gi moo dee la soxna see dee la doom jee dee foog ñu ne la am na ku dee parce que ñoom jàpp nañ ne muura aadaay naar la aaday naar ndeysaan muuraay aaday naar loolu moo la ne Sénégal comprendre ñu diine jànguñu alquran muuraay wàcc septième siècle mu nekk ay aaya ci alquran ñëpp di ko jàng ñu naan aaday naar la pourtant ñun ñoo nangu ñun ñoo nangu jigéen bu muuruwul du jullit jullit la Serigne Touba nanguwu ko Serigne Touba moom dana jigéen bu muuruwul yéeféer la gis nga ñun nag mun nañ koo toléré mais moom toléré wu ko woon lan la indi ba muy bind Penda Diop lan la indi lan tanaali diinan doo mën a am diine yow lu dul nga muur sa yaram doo mën a am diine kon boo muur boo muuru sa yaram amoo diine boo amul diine yëfër nga atta sëriñ bi loolu la ñun tey ñu ngi nii Sénégal a ngi nii jigéen ñi yaramu neen la ñuy def ñii dañuy paccal ñii di dangal ñii di xóotal ñii di fant ah waaw mbooloo moo romb ñu ne ak a rafet kenn du ne dafa araam mais dañ naan dafa rafet waaw benn waay mu ne démb yàlla waxul fenn nañu muuru nañu musóoru la wax nañu musóoru yéen yéen fi ñëw rek bëgg fee indi ay muuraay quoi mais yàlla musóoru la wax ñun depuis ah Sénégal mosu musóoru lañ xam ma ne ko d'accord naa sax léegi nañ bàyyi muura nañ wax musóoru mais léegi yéen musu musóorootu leen maire boo ci gis solo ba pare kaala gi ci poq fii la koy teg ci kaw mbagg li ma ne ko musóor boobu sax yéen defatu leen ko ak a neexoon sax ngeen di musóor ak a neexoon ngeen di musóor kon jigéen bu jëkkëram dee jëkkëram faatoo dañ koo tere taaru dañ koo tere laal lu xeeñ parfum cuuraay dañ ko tere dóor leer di jaagar jaagar yi dañ ko tere jaayu ba idda bi jeex idda bi ñaata la ñeenti weer ak fukki fan yu ànd ak seen guddi ba mu des ku ku ëmb jigéen bu fa jëkkëram faatoo mu ëmb jëkkër ji faatu tey mu commencé tënjëm tey ca suba mu am doom tënj ba jeex na jëkkër ji dafa faatu tey ñu ne ko da ngaa ëmb tey ba ba muy am doom neuf mois day tënj dégg ngeen wax bi waaye bu fekkee ëmbul amul doom ñeenti weer ak seen fukki fan yu ànd ak seen guddi bu fekkee dafa am doom tey tënj bi jeex na bu fekkee dafa ëmb tey tënj bi kañ lay jeex saa yu amee doom loolu bu ngeen demee ci saar bu tur suratu talaaq yàlla nga fay leeral aaya yi wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yada'na hamlahunna ñi ëmb seen idda mooy ñu am doom nee na ndaw si léegi jëkkër ji faatu na tënji na jeex na wala am na doom wala léegi nag yan àtte la islaam teg ci kaw amul bàkkaar moom ndaw soosu mu commencé solu commencé taaru ah jaayu jaayu bu lislaam bëgg mooy wan góor ñi ne man awma jëkkër pour ñu takk loolu dagan na ci moom waaw dagan na de islaam daganal na ko de soo amul jëkkër dagan na nga jaayu pour nga jaar waaye nekkul ni ko waa Sénégal ji defee sol yaramu neen dugg ci góor ñi jaagari jaagari fu ne nga dugg fa loolu moom lislaam def ko araamal sunu borom subhanahu wa taala mu ne ba tey dina dagan maye nañ jigéen joo xam ne borom këram dafa faatu mu nekk ci ténj dafa araam ñu koy labat jigéen jëkkëram faatu jigéen jëkkëram faatu muy ténj nga ñëw ci moom nopp ko bu ko wax mën nga junj nag ah yow de wax dëgg yàlla xam naa ne bis boo jeexalee ténj moom góor gu la takk texe na góor gu la takk am na soxna góor gu la takk yu demee noonu waaye comme loolu paa yi def ñëw summi naaf sama daal loolu moom dafa ëpp waaw boo ko summee tamit da dañ la war a wax solaat ko waaw waaw wala ñëw naan ko ah comme sa waay dem na léegi yaa ngi tënj nag ma bàyyi xel yooyu dafa ëpp yooyu moom mu leer na boobu leer na bàyyi ma xel boobu leer na ay maaf si mi sama daal boobu dafa leer maanaa yow daal war nga incarner loo xam ne ndaw si dina la jëli waa junj di junj waaw waaw waaw yooyu rek ngay def mais labat bu fis moom dafa xaraam parce que ndaw si day tënj loolu tamit yàlla mu ngi ñu koy bàyyiloo ci aaya yi nekk suñu kam suñu kanam kon ci gàttal lenn ci ay atte yu nekk ci aaya yi moom lañ fas yéene jël ci ñaari aaya aaya 234 ak 235 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهزروا واعلموا أن الله غفور رحيم يقول مولانا تبارك وتعالى سنبرمني والذين jigéen ñi nga xam ne wala góor ñi nga xam ne yu tawa faw na dañuy faatule ñi nga xam ne dañuy faatule yu tawa faw na ay yufihim allahu taala ma kataba lahum min al umri fa yamuutu wallazina gaa ñi nga xam ne yu tawa faw na dañuy faatu minkum ci yéen yéen góor ñi ñi nga xam ne dañuy faatu ci yéen wa yadharuna ñu bàyyi azwaajan ay soxna faatu nga bàyyi nga soxna ginnaaw wala ay soxna benn ñaar ñett ñeent fa la yem jigéen ñooñu lan mooy seen àtte ginnaaw yow ku góor ki ba nga faatoo bàyyi leen ginnaaw borom bi subhanahu wa taala mu ne wa yadharuna danañ xaar yatrukuna danañ bàyyi zawjatin lahum ay soxna faatu nañ wa yadharuna ñu bàyyi azwajan ay soxna seen ginnaaw soxna yooyu lan mooy seen àtte mu ne yatarabbas yatarabbusna danañ xaar yantazirna hatta inqidaai iddatihinna danañ xaar ba seen idda jeex idde gi mooy lan ah ndaw su jëkkëram faatu idde bi mooy lan mooy mu toog ñeenti weer ak fukki fan bu fekkente ne dafa ëmb idde bi kañ lay jeex moo am doom kon ñoom ñaar yooyu rek la da nga ëmb boo amee doom idde bi jeex ëmb ñeenti weer ak fukki fan borom bi subhanahu wa taala mu ne yatarabbas na dinañ xaar bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin wa asra dinañ xaar ñeenti weer ak fukki fan dafa am benn borom xam-xam wala benn buur bu musa woote woo ñeent ñetti diine yi nga xam ne ñoo gën a siiw tey ci àdduna yu fi nekk nasaraan yahud ak islam mu laaj yahud yi ne leen jigéen bu faatoo ci seen diine lan la ci islam wax lan mooy digganteem ak borom këram lan mooy àtte bi ñu ne ko ñooñu lu loolu amul sunu àtte ñun loolu sunu diine waxu ci ñu woo nasaraan yi ne leen yoon léegi yéen lu ci seen diine wax ñu ne sunu diine waxu ci ñuy wër lan la ci science wax gisuñu benn waaye ne leen léegi comme ñun bu ñuy organiser suñu colloque bi woowuñu woon jullit yi nan leen woo comme danoo woo woon rek yi ñeneen ñi boroom xam-xam yeeg nangam nangam yeeg médecin yeeg yëpp nañ ñëw ñu xool ku nekk ne xamu ci dara léegi nañ leen woo jullit yi ñu woo benn borom xam-xam bu mag bu tudd Ahmed Didat xam ngeen ko te mu nekkoon Afrique du Sud ginnaaw dina yàlla na ko yàlla yërëm góor gu jàmbaare woon ci dundam góor gu liggéeyaloon diine tuubloo ay américain ak ay africain ak ay chrétiens yu bare bare bari ci àdduna fu nekk dafa doon def débat yenn saa yi sax di ngay dégg ndeysaan ci débat yi muy critiquer jullit yi ndax ragal gu ñu ragal ndeysaan bi mu ñëwee mu ne leen ah loolu kay ñun loolu lu yomb la li ngeen di laaj gaa yi ne ko lu tax ngeen dafa yomb mu dafa yomb fan ngeen ko seet gaa yi nañ ko seet nañ ko ci ancien testament bi gisuñu ko seet nañ ko ci nouveau testament bi nekku ci mu ne leen mu ngi ci dernier testament nekkul ci ancien nekkul ci nouveau mu ngi ci dernier bi gars yi ne ko ana dernier testament bi mu daal di ubbi alquran bi ne leen ubbi leen suratul baqara aaya 234 borom bi subhanahu wa taala nee na teg leen seen baaraam gars yi daal di teg mu ne acca ñu yor kaamil français nañ ubbi ñu yor anglais nañ ubbi ñu yor arabe nañ ubbi ku nekk loo yor ubbil borom bi nee na walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbusna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa asara jigéen bu borom këram faatoo góor bu faatoo bàyyi ay soxna ginnaawam jigéen ñooñu ñu bàyyi danañ toog ñeenti weer ak fukki fan allahu akbar gis ngeen alquran bàyyiwul dara yàlla nee na maa faratna fil kitaabi min shay bàyyiwuma dara wax naa leen barki démb démb tey sunu diine ngi nii lan la bàyyi yii tey am na ñoo xam ne lii ci sunu programme mu dund li boolewuñ ko ci waaye li yëpp yàlla lu set la bëgg lu leer ndaw si borom këram dafa faatu keneen bu ko ñëw takk suba ah takk ko nekk ak moom quelques jours ñu ne ndaw si dafa ëmb ñi naan jëkkër ju njëkk jee jur doom ji ñi naan jëkkër ju mujj ji gis nga problème ñëw na yàlla dafa bañ deret yi jaxasoo kenn jaxase deretu jàmb ndeke sax waxuma fase waaye même boo faatoo yàlla dafa bëgg ndaw si set wécc wécc wécc ba du mu jël sa benn àq sa deret di ko jox keneen gis ngeen lislaam li mooy wan ne ñun xamuñu li nu am dama leen koy wax chaque jour suñu diine ji bàyyiwul dara dara dara la bàyyiwul lépp loo yaakaar ne lislaam waxu ci da ngay nax sa bopp kon tey doomu aadama yi bu ñu bëggoon dund jàmm ci kaw suuf lu ñuy def mooy dund li rek féex mais pourquoi nit ñi yàlla indi leen loo xam day baaxal seen dund ñu lànk ne duñ ko def lu tax ku nekk war nga ci xalaat da ngaa xiif lan mooy sa problème xiif mar yow lan nga aajowoo ku xiif mar lu mu bëgg tabax kër ku ko tabaxal kër waa ji xiif di bëgg dee nga indil ko oto daan ko oto bi laa la may ah wala lan nga ko indi la ko tëddal ne la kon ki xiif moom mar lan mooy lan lan la soxla te kag naan daa gis nga ki dee lan la soxla suuli rek wala nañ ko suuli rek parce que mu nekk fii daf ñuy sonal ku dee gis nga nit bu dee timis këram du fanaan boo dee guddi tamit doo fa fanaan boo dee bëccëg doo fa yendu doo dégg ñu ne la dee lakkale na ku dee timis doo reer tere nit ñi reer ku dee timis est-ce que di nga reer doo reer est-ce que kër gi nga dee dinañu reer dund reer moo tax ñu ne da nga kii kii moo lakkale na ku dee timis doo reer tere nit ñi reer boo daa bàyyi ba nit ñi reer ba pare sax mu doog a mu doog a dee bo ndeysaan sunu grand bi nekk ci kër gi nee na benn frère am dafa dee France ñu indi koor bi balaa ñuy indi koor bi nag ñu dajee kër waa ji ñu toggal leen cere cere yàpp defal ko ba mu neex ñoom ñëpp ñu fanaan fa pour di xaar koor bi ñëw pour ñu yóbbu ko seen dëkk nee na ñu teg rek benn benn rakkam daal di tibb première dànk sax daal di daal di yàbbi jóg ba cax jóg jóg dem gaa yi ne ko kaay lekk kaay lekk kii dee na ba pare kaay lekk gis nga ne loolu lañ lay wax kaay lekk kii dee dee na ba pare bu yeboo rek nga ñëw lekk boo lekkul yàgg yàgg da nga ñëw lekk kon kaay lekk rek waaw da nga dégg nit ñi di la yedd lekkal dégg nga lekkal nga dellu sa xel santal yàlla xam ne kii dem na ba pare lépp loo fi def du ñëwaat du ñëwaat wala du loolu la ñuy wax te su waa ji commencé waaw comme léegi yedd nañ xel mi daal la ñu daal di koy yónnee soow ak cere daal di dóor ba gàtt ñu ni ko benn mbuusu ndox mu sedd mu daal di koy këlëbti koo toog ana ki deeki ana ki deeki moom ah ana ko deeki ca morgue ba wala moom caarmee la ñu suul waaw léegi sax moom bu njëkk ba sax la gaa yi doon naqarlu bu nit dee mais léegi moom bu nit dee kenn du naqarlu waaw boo dee rek gaa yi commencé nañ jënd nag cotisé waaw 1000 francs 1000 francs yi 2000 2000 yi 5000 5000 10 000 10 000 yi commencé waaw léeg-léeg nga gis benn waay boo xam ne gëj nga ko gis juróomi at juróomi at jaaroo sa kër woowu la téléphone dégg dee nga rek mu ñëw indi 100000 dañ ci jënd nag fekk waa ji dégg nga dafa feebar fukki at. man de wax dëgg yàlla li ma gis Sénégal ñu koy dëje jàpp naa ne bu ñu ko waa ji bi mu feebaree bu ñu ko ko defaloon mu wér maanaam tey bu nit feebaroon parce que sénégalais yi ñu ci ëpp lan moo leen rey tooy rek dañoo tooy ñoom ñëpp tooy rek a leen rey dañoo dox ba mbokk dañoo tas waaw du ñu noppalu ngir bugg alal jar ci jal ci xam nga loolu dalay jàpp léegi na nga tooy nga feebar yóbbu l'hôpital waa hôpital ne ah kii de wax dëgg yàlla dafa dafa sonn dina la ordonnance yoo xam ne kenn mënu ko jënd gars yi bu loolu ñuy dajale ci dëj bi buñ demoon daral jëndal la ko benn nag 200 millions yi bu ñu ko jëloon benn nag ñëw ñu rey ko defal la ko ci frigo bi ji la suppal midi ngoon fajar allahu akbar 10 jours billaay waa ji ku ko booleeg mànga mu da kii kii nu mu tuddati ku ko booleeg nu mu tuddati Yékini mu daan ko waaye dañ duñ def noonu de dañuy bàyyi ba nga dee yi ñëw dajale ay 200000 300000 400000 500000 1 million 2 million dem jënd ay nag jënd ceeb jënd diwlin même bu ñu defoon loolu sax ñibbi ñoo waroon jënd loolu sax dugal ci kër gi ñibbi déedéet indi seen i baas teg ñoom ñu ko dajale ñoo koy lekkaat dem ñibbi ñoom ñu ko dajale ñoo koy lekkaat ñibbi da ngay dégg waa ji mu ne waaw yow kañ ngay ñibbi mu ne dama ko mën damay xaar ba maañ ma cotisé waaye man ñibbi ma cotisé ma cotisé waaye waañ ba suur doog a ñibbi xaar xaar ba maañ de ngeen xaar ba ñu añ waaw cotisé naa gis nga allahu akbar dañuy nax suñu bopp rek dañuy dund dara du ci lislaam yu bëri yu ñuy def dara amuñ ci tiyaaba dëj dëj amul tiyaaba de bu yeboo nga jox bu yeboo nga jënd saaku ceeb bi amoo tiyaaba bu yeboo nga indi nag bi amoo tiyaaba bu yeboo nga luye baas yi amoo tiyaaba bu yeboo nga luye sées yi amoo tiyaaba c'est parce que lii ngay def yàlla da koo tere yonent bi da koo tere bu fekkoon ne da ngeen dajale xaalis bi nag ngeen jënd ceeb bu doy diwlin bu doy nangam bu doy dugal ci kër gi ngeen xam ne góor gi dee na moo fi nekkoon nekkatu fi njaboot gaa ngi fi dañoo sew mënuñu dara xam ngeen ne fii ak ay fan dañuy am problème ngeen dajale loolu loolu ñu ciy suqaliku ndànk-ndànk loolu baax na waaye yéen ngeen dajale dara ba pare daal di koy këlëbti koo waat seen bopp dem ñibbi nag yi lekk ngeen ko ceeb bi lekk ngeen ko waaw ba pare sax loolu jàmm la da ngay gis dëj bi jeex ñi doon togg di di yóbbu ceeb bu ñu toggagul bi ak ndugub bi li ci des waaw ñi reyoon yóbbu yeeli nag yi yóbbu bopp bi ba pare lu garaaw mooy fii Sénégal ñoo mën a ngistal gis nga bu ñu reyee ñetti nag dañuy jël bopp bi kenn du ko fees de dañ koy jël teg ko nii quoi ci yetu baas bi ku ñëw rek gis bopp nag yi bopp nag yi ne nii ñu ne ne ndag yaa ngi nii pour ñu xam ne ay nag lañu rey yow leen du ngeen gis loolu man de gis naa ci kër goo xam ne dañoo jël bopp nag bi exposé ko suba ba ngoon ñu xëy suba bu koo fees ñu fekk ay sax di ci génn coow li na kur ndax bopp nag bi yàqu na waaw waaw coow li na kur bu nekkee seen dëkk ah ñeenti bopp nag waaw moom la ñu teg ci ci mban gàcce bi ci ci ci fi ñu tegoon néew bi ah ci kawaan kawaan karamu kër gi nii waaw ñeenti bopp nag yi ñu teg ko ni nit ñi di ko gis pour ñu ne pour ñu ne ay nag lañu rey gis ngeen wallahi Dakar fii noonu la ñuy def wallahi alazim noonu la ñuy def est-ce que loolu diine la moo tax ma ne fii diine amu fi dañuy sonal suñu bopp rek fii amul diine amu fi de bu yeboo ñu dañuy sonal suñu bopp rek maa diine li muy wax ak ñun li ñuy def ça fait deux diine li mu wax ak ñun li ñuy def ñun ay aada la ñuy topp ak ngistal ngistal de ana bopp nag yi teg leen ko nii lu tax ñu koy teg foofu pour wane ko pour nit ñi xam ne nag lañu rey waaw après bu ko nit ñi xamee ku dee ku dee ki day ñëwaat sama benn xarit papaam daa dee ndeysaan góor googu sax papaam dee woon tey jii tey jii may wax ak yéen doomam dafa dee tey tànk lañ ma ko tàgge principal góor googu ma bëggee wax ni problème am tey taawam bu góor dafa dee tey taawam bu góor billahi wallahi taala tey principal góor gi faatu ñu doon yóbbu ko armée yi suul ko ñëwaat nga dégg ñu naan ah waaw léegi nag gars yi ne jeex ñu ne jeex kii di kilifa kii di bu ngeen ko reyalul dara kii du tàlli foog ngeen rey waaw di wax di wax di wax ba famille bi dajaloo dem jënd nag ñëw indi ñu ne ah lii la ah kilifa bu dee li xam ne kilifa la foo ngeen dëj waaw waaw dëj ngeen ngeen dëjal ko ndax su boobaa du dëj ci bàmmeelam ci lay tàlli ko baax na li tàllal nit du dëj de li tàllal nit ci bàmmeel du dëj yàlla wax na ko yàlla wax na li tàllal nit ci biir bàmmeel allahu akbar nit kii dee ci biir bàmmeelam di tàlleeku dafa fekk jàmm yàlla wax na ko ci alquran bu nit bëggee dee tàlli da ngay dégg aaya boobu nga dund ko boo dee bu na dugalee sa biir baab mel boo dee nga tàlli borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñi nga xam ni dañu ne yàlla mooy seen borom rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu wabsiru biljannati allati kuntum tuadun ñi taxaw ci àdduna gëm yàlla suñuy faatu malaaka yi day ñëw taxaw naan leen kontaan leen àjjana ngeen jëm nga ni sama njaboot nag ñu ne yàlla moo ciy teg loxo tatanazzalu alayhim almalaika malaaka yi ñooy wàcc naan la bul tiit allah taxaafu bul tiit fi nga jëm bul ragal wala tahzanu bul naqar lu njaboot gi nga bàyyi allah taxaafu fule alaxira wala tahzanu mooy njaboot gi nga bàyyi ginnaaw yàlla moo ciy teg loxo fa nga jëm doo tiit ginnaaw li nga fi bàyyi rek la nañ ko lan la ba pare de duñu yem ci loolu wabshiru bil jannati allati kuntum tuadun àjjana jooju yàlla doon la dig kontaanal fa nga jëm tey waaw kuy dee ñu wax la ñetti yi sama njaboot ñu ne la yàlla teg na ci loxo fa ma jëm ñu ne bul tiit àjjana nga jëm lu fa desati ba pare yàlla du yem jula mu ne la nahnu awliyaukum fi l xayaati dunia wa fi l axira ñun yàlla ñooy sa allié ñun nga allié li adduna ak alaxira ñun ñooy sa allié lii mooy tàllal nit lii mooy tàllal nit ku bëgg a dee tàlli defal lii ixwaan yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ndaw si tënj na jeexal na def na ñeenti weer ak fukki fan borom bi ne fa isa balax na bu ñu jotalee bu ñu motalee ñoom jigéen ñi fa isa balax na ajalahunna balax na intihaa il idda tënj nañ ba tënj ba jeex wala ndaw si am na doom tënj bi jeex su boobaa fala junaaha amul bàkkaar aleykum ci yéen fii ma faal na ci ñoom jigéen ñi la ñuy def fi anfusihinna ci seen bopp bil maarufin ci njekk mbokk yi borom bi nee na jigéen ñi bu ñu tënjee ba jeexal kon bàkkaar amatul ci yéen góor ñi ngeen di yenu responsabilité bàkkaar bu jigéen bi def yéen kilifa yi falaa junaaha amul bàkkaar aleykum ci yéen fii ma faal na ca ñoom jigéen ña la ñu def fii anfusi na ci seen bopp bil maaruf ci njekk laa xaraja aleykum amuleen bàkkaar ayyuhal awliya yéen kilifa yi fii ma faal na ñoom jigéen ña la ñu def fii anfusi na ci seen bopp min masti tiib ci laal parfum ci taaru commencé waaw ah di capp-cappal ah moo tax it attention de léeg-léeg nga gis bi ay yenn mbokk yoo xam dañoo ëppala ëppala ëppala ëppala ëppala ëppal amoon na benn ndeysaan benn lycée jarul tudd tur buñ nee benn lycée rek dees na mën a xam lycée la benn xale bu jigéen bu daan solu waaw di solu di jàngi si rek gars yi naan ko waa mbokk yow da ñuy fitnaal quoi bul solooti da ngeen koo xool mbokk yow vraiment da ñuy fitnaal quoi incha allah incha allah da ngay wàññi li ngay solo quoi parce que yow da ngay fitnaal mbokk yi na mbokk yi xool ci suuf qul lil muminina yaxuddu min absaarihim xal jigéen ñi góor ñi ñu sajj seeni xef jigéen bu ko neena mu solu ndaw saa ngi nii te ngi na jeexal na yàlla nee na su soloo génn wala mu def dara ci yaramam lu rafet amu ci bàkkaar yéen ñi nga xam ne yéen ay param sax amu leen bàkkaar kon war nañoo am tolérance war nañoo am tolérance bañ a ëppal parce que diine du xalaat diine du gis-gis diine du ñoom diw diine du diw diine yàllaa ko moom yenent bi la yàlla yónni na ko leeral lii alxuraan la wala alxuraan waxul li yàlla mu ne fala junaaha aleykum yéen kilifa yi amuleen bàkkaar fii ma faal na ca jigéen ñi la ñu def fi anfusihinna ci seen bopp boroom xam-xam bi bu ñu koy firi lu ñu wax min masjid tii bi ci laal parfum wa tajammuli ak taartaalu wa taarrudi lil xitaab ak gaaral seen bopp pour ñu takk leen gis ngeen tey boo ci gisoon benn jigéen bu dem la non kii amul benn imaan ki bandi la ki xoolal li muy def haram haram déet teyal haram teyal na ndànk yàlla moo ko may mu def ko hmm? kon nañuy def ndànk ñuy demee sago di demee dégginu lislaam bañ a demee sunu dégg-dégg léeg-léeg nga gis ci nitu diine yi aussi ñu ëppal léeg-léeg nga gis aussi waxuma ñu ëppal ñoo xam ne mbir yi nag ñoom tamit jéggi na dayo jéggi na dayo maanaam dañu nekk dañu bëgg mu nem ci digg bi xayrul umuri awsatuha na nekk ci digg bi ëppal baaxul dem ba mu ëpp baaxul waaye tamit yàccaaral ci suuf tamit baaxul yëpp daal na nekk ci digg bi te ñun xeet woo xam ne dañoo nekk ci kuntum ah lan la yàlla wax ummatan wasata lépp dañoo nekk digg doomu moo tax da ngay woor dog julli jaamu ji yàlla lu nekk dafa nekk ci digg bi ñun du ñu ne dañuy du ñu takk jabar dañuy làbbewu déedéet dañuy takk jabar di jaamu yàlla ba gis nga nekk ci digg bi am na ñu ne ñoom duñ takk jabar dañu ëppal ma da yàlla mu ne ibtada'uha ma katabnaha alayhim kon jigéen bu tënjee tënj ba jeex kenn amul droit di ko tere naan ko dootoo fi solooti dootoo fi sangooti dootoo fi xeeñ lu neex dootoo fi dootoo fi dootoo fi waaye xeeñ googu aussi dafa am ay dawaabit ndax da koy xeeñ génn ci mbedd yi di dara mbambalu di dem ci garam palaas yi naan leen génn naa di xanaa xoolu leen ma maa ngi nii di déet waxuñu tamit comme li xew léegi suñu jigéen ñi di téñ ñi di xeesal di téñ ñi di laal waa damay laal di ah maa ngi ciy laal di xam nga léegi ma jeexal jigéen ñi bu ñu ëmbee dañuy bu ñu ëmbee dañuy xeesal bu ñuy téñ moo tax du ñu ragal yàlla ki sa jëkkër dee ngay xeesal nekk ci téñ ñi di xeesal ki nekk ci danger yaa ngi ëmb doom hôpital nga jëm ñaata nit ñooy am doom di dee ngay xeesal boo waarul ñaar yi bu la waarul dara dootu la waar jigéen bu ëmbee nan la ko waa Sénégal di tuddee ah jigéenu wérul ku wérul luñ ci xalaat de su nit feebaree loo koy wax su nit dee lu ñuy wax xanaa defa ba pare nga toll ci jamono boobu ñu naan la jigéenu wérul ngay naan man kay bu soobee yàlla balaa may am doom ga kii bi laay diwoo xaw ma nu mu tuddati akañe bi laay diwoo wala gana gi gis naa jigéen ñoo xam ne bi ñu ëmbee dañoo boole ay produits yoo xam ne du tolloog cinq daal di koy diw seen yaram ba mu daj daal di sol perméable daal di sol mbàjj sol piliweer ne damay ñaral dañuy ñaral gis nga kooku bu ko defee ci guddi gi ba xëy suba ba dindi ko da ngay gis ñu naan nii der yi xol der yi di teggeeku mu ne dama koy ñaral su ko defee nga gis ah balaa 10 jours mu xonq coy coy coy coy loolu la ñuy def ñaral bu ñu ko defee ay perméable la ñuy sol ay mbàjj ay piliweer tëdd ci tàngaay tëj bunt bi sàngoo mbàjj su ko defee yaram bi fet feti di ñori di ñori der bi di ko ñori gis naa ndaw soo xam ne bi mu accouché produit yi mu doon diwoo bi mu ëmbee dafa jàpp liir bi jusqu'à présent ba fii may wax ak yéen nii su ma waxoon rek am ñoo xam ne xam kër gan la waaye junj junj doy na borom xel il faut ñu góorgóorlu mbokk yi xam ne dundu diine ak nekk ci dëkk bu ñu naan dafa am diine du benn dëkk bu ñuy layee ne lislaam a fi nekk ak dëkk boo xam ne dañ koy dund du benn ñun bu ñuy layee ne ñun ay jullit lañ te duñu dund ñu diine benn boroom xam-xam dafa jóge Europe dem Inde walla Pakistan boroom xam-xam yi wër ko ne ko naka Europe mu ne gis naa fa l'islam mais gisuma fa ay jullit ñu ne ko ñun fii nag mu ne gis naa fi ay jullit mais gisuma l'islam da ngeen wax bi su ngeen demee Europe loi yi ñu fa tëral ak doxalin beeg dundin bi loolu mooy l'islam mais jullit amu fa pour dund ko su ngeen ñëwee fii ci sunu dëkk yi jullit ñaa ngi nii mais l'islam nekku fi jullit ñaa ngi nii nag koo dajal noo tudd Muhammad Abdallah Xaadim Malik Ismail Khadija Zeynab Rokhaya ana l'islam nekku fi dafa tukki ñëwagul ndeysaan da ngay gis jigéen di tënj di xeesal gis naa ko ba tàyyi tënj di xeesal tënj di xeesal ki nga xam ne day tënj di xeesal est-ce que kooku xalaat na jëkkëram mosoon naa ko wax benn jigéen ma ne ko yow ngay fanaanoo nit ci kawlal mu dee sa xel amul ci lenn lu mu dem lu ñul di xeesal ak di meesu ah ah kii kat dee na nag jeex na nag léegi nag loo bëgg nag ah ma bañ a defaru damay defaru nag kay kii kay dee na nag jeex na waaw dee na jeexut de yow yàlla dalaa araam da li nga dem yàlla da koo araamal bu sa jëkkër faatul woon sa yàlla da koo araamal léegi nag wax sama laak da faatu sa xel war a dem ci yàlla nga xam ne yow mi yaa ciy tegu da ngay def ne sa jëkkër day dee nga toog fi waaw léegi nga def topp ko wala sa jabar day dee nga toog fi wala sa papa day dee nga toog fi wala sa yaay day dee nga toog fi malakal mawti waxoon na daawud keroog ba daaw malakal mawti daawud dafa fiiroon bu daan génn këram day tëj kër gi day tëj jigéen ñi ci biir buntu kër gi da nga naan ko ràpp tëj pour balaa góor di fa dugg benn bis mu génn ñëwaat rek gis benn ponkal bu toog ci digg kër gi toog ci sées bi di ko xaar mu ni ok la yoonu sama kër yaay kan man ko maay ki buntu munta téye man buntu munumaa téye caabi munumaa téye miir munumaa téye mu ne kon yow la malakal mawti mu ne ko waaw loo fi wut ko yow laa jël si waaw non lu tax tax waxu leen ma ko an sa baab ko dee na an sa yaay dee na ana sa maam dee na ana sa dëkkandoo diw dee na ana diw dee na xamoon nga ne yaa ci taw waaw bés bu ne nga dégg nit ñi dee nga ne dañoo bokkoo ci allahu akbar moo tax borom bi ne qad xasira alladina kazzabu bi liqaa illah ñu perte dëgg mooy ñu jàpp ne ñoom duñ dajeeg yàlla ñu perte nañ jàpp ne yow doo dee xam nga lu mu lay jural bañ a préparer soo xamee ne da ngay tukki tey nooy def ku leen dama lay bëgg a seet sax da nga naan non non non non tey ma kenn seet si tey du ma dem fenn parce que may préparer parce que tey ngay dem wala ñun nag dee def ñuy bett bis mu nekk du ñu préparer te dee nit daf ko war a waajal. yeneen bi sax sallallahu alayhi wasallam daf la ne bul fanaan bis wala guddi te bindoo sa wasiya ibnu omar lan la wax iza asbahta fala tantazir al masa wa iza amsayta fala tantazir al saba wa ud nafsaka min ahli al qubur soo xëyee suba bul jàpp ne di nga yendu boo yendoo bul jàpp ne di nga fanaan foo toog limal sa bopp ci waa bàmmeel yi xam nga boo doon dundee nii ah yii boo ko doon def kon sa jëkkër du dee ngay xeesal di ténj nekk ci ténj waaye yow seeti nga ajaa ah seeti naa ko mais moom dafa leer de si kii kay macha allah ba di sax da koy rëdd nga gis jigéen ñi di wax waaye yow ah yaa ngi laal ah mu ngi lu ngeen bëgg nag lu ngeen bëgg nag ma lëndëm ah déedéet damay leer nag ah pour bu ma génnee nag dañ koy waxtaane seen biir waaw lan ngeen bëgg nag ah damay tuuti nag sekk nag da nga naan deel laal tuuti nag bu la ëppal mu ngi naan mu naan maa ngi laal tuuti rek waaye temps yi sax sama kib bi dafa jeex waaw boo demee nga indaaleel ma nga gis góor ñi yàlla rëbb ñu ne la lan moo jeex kib bi ñu naa indi ma jëndal la ko ma jëndal la ko sa yaram day daw Sénégal sa yaram day daw billaahi wallahi taala yi sa yaram day daw ci nit ñi ni ñu soree yàlla ci nit ñi ñemee bàkkaar ci nit ñi ñemee mbon ci nit ñuy jalgatee sharia di xotti xorma yàlla te aaya yépp wax naa leen semaine bi buy jeex yàlla lan lay wax tilka hududullah fala taataduha di tëkku wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsa borom bi ne fala junaha alaykum amuleen bàkkaar yéen kilifa yi fii ma faal na ca ñoom jigéen ñi la ñu def fi anfusihin na ci seen bopp waaye bil maaruf gis nga lépp na nekk ci njekk aaya bi ñëwaat na tey de semaine bi baatu maaruf ñaata yoon la ñëw ah ci aaya yépp la ñëw islam lépp lu muy def ci maaruf ci njekk gis nga lépp looy def dafa war a am njekk islam bëggul jalgati même solu googu ndaw si solu jëkkëram génn na jeex na tenji na ah na nekk bil maaruf ci njekk bu ko def ci jalgati ëppal jagar-jagar yi waaw wat say yéen épilé wu fii ro rosa ca daf sol lu bon déet bil maaruf ci njekk mooy li la lislaam sant na nga solo waaw sangul sol ak lu correct toogal sa kër ku ñëw nga recevoir ko toog waxtaan ak moom jeex na loolu doo nga la ci yàlla bëgg a wax subhanahu wa taala mu ne wallaahu yàlla bima taamaluuna xabiir allahu akbar ndeysaan ndeysaan démb sunu aaya mi ngi jeexe woon wallahu bima taamaluuna basir barke démb yàlla aaya baa ngi jeexe wallahu yaalamu wa antum ah semaine semaine bi ci teg woon mu ngi jeexe woon anna allaha bi kulli cheyin alim da ngeen yaakaar ne aaya yi fi muy jeexee nii yàlla day wax nii rek muy jam dem te aaya bu ci nekk li muy jàngale suy jeex loolu la ko yàlla di tëje moo tax said xawa rahimahullah mu ne bu ngeen di jàng alquran day leen bàyyi xel aaya yi fi muy jeexee mbokk yi sunu aaya bii fan la jeexee yàlla mu ne waala wallahu yàlla xabiirun ku xam la bi ma taamalu na li ngeen di def lu tax xam nga mbirum secret la mbirum biir néeg la mbirum yaag ndaw si ndaw saa ngi ténj est-ce que nangam est-ce que nangam léegi nag la ngeen di nëbbu yàlla ne xam naa ko bi ma taamaluun xabiir lépp lu ngeen di def ci biir bu leen jalgati li ngeen def ci biir yàlla ne xam naa ko wallahu bi ma taamaluun xabiir may expert bi lépp laa xam man ku dañ kumpa laa leen saa yi nga dégg ñu ne diw dafa dañ kumpa déedéet baat boobu yàllaa ko moom suñ nee diw dafa dañ kumpa dañ ko tooñ jox nañ ko lu moomul baat boobu yàlla moo ko moom yàlla moo dañ kumpa nit moom dafa bañ lu ko ump dañ kumpa mooy lan lan mooy kumpa ah kumpa mooy lan lu nëbbu ki ci deñ ki nga xam ne mbir mi nëbbu moom amu ci problème parce que xam ne liñ denc lan la moom day toog rek nga gis gaa yi xamul lan la di kër kër yi moom mun a teg parce que xam na lan la ah kon dafa deñ ci kumpa gi doomu aadama nag daa bañ lu ko ump moo tax muy kër kër yi pour xam loolu kon ki deñ kumpa mooy kan yàlla lépp la xam wallahu bima taamaluuna xabiir yàlla xabiir xabiir ci arab mooy expert suñ ne kii am na xam-xam ci dara kii expert la ci ku ci raw mooy xabiir mooy ki nga xam ne mbir mi moom jàng na lépp xam na lépp peeg na lépp loolu mooy xabiir yàlla nag ñun lépp lu ñuy def moom xabiir la ci xam na ko borom bi subhanahu wa taala mu ne baat yu mel nii aaya yu mel nii boo koy jàng daf lay delloosi waxoon nañ démb tey ñi ñuy jiite bu ñu doon bàyyi xel aaya yi kon réew mi day baax gis ngeen nguur gi commencé na am problème lu tax dëkk bi ñëpp a ngi ci ndox kër yëpp a ngi taa soo demee yenn côté yi courant amul yenn côté yi nit ñaa ngi dee deret di tuuru ah kon loolu moo leen di wan ne yàlla moo moom adduna bi yàlla moo indi jàmm bu ñu fi tegee nit tamit pour mu indil ñu jàmm te yàlla programme wul ñu am jàmm ñu am jàmm te nawet bi jeexagut de jàmm la ñuy ñaan de waaye jeexagut de te fi mu nekk nii lu mu gën a sotteeku rek nit ñi gën a am problème lu tax parce que nit ñi dañuy dund sans préparer li ñuy dundee waaw dañuy dund sans préparer nit ñi dañuy dëkk di dëkk ba dëkk ba fi ndox war a jaar te ndox moom fii ak téeméeri at fi mu doon jaar bu ñëwaatee fa lay jaaraat lu mu fa fekk da koy buub mu yóbbu ñun bu fekkee taw na taw yu ndaw ndawaan yi mooy ñuy sonal taw une heure de temps bi su toogoon une semaine di taw fu ñu jëm ah bu ñu toogoon laax Dakar muy taw une semaine ñu tax a arrêté comme taw bu fort barki démb bi keroog benn waaye nee na ma bi mu dënoo dama yaakaaroon ne dënn bi sama biir néeg bi la wàcc dënn boobu yenn ñu waa Ndakaaru ñu bari de ah kan ci yéen fii ci biir jumaa ji ko déggul troisième rakk la leen fekk am na ñu si jóot ne ah am na ku daw génn allahu akbar allahu akbar sëm allahu akbar gis ngeen allahu akbar allahu akbar keroog ñëpp a yeewu kenn yeewu tewul xëdd keroog allahu akbar keroog yàllaa ñuy xëdd ñëpp a yeewu da nga kii de nu mu wax fekk nit ci biir jàkka ji mu daw ñëwaat ndeysaan dafa am benn boroom xam-xam bu gis muy dënu gis ngeen dënu keroog bi pourtant yërmande la dafa bokk ci yërmande yàlla léegi nag bis bu melee nu muy mel muy dënu dënu yu mel noonu boroom xam-xam bi wol ki mu àndaloon ne ko haza min asaari rahmatillah lii ngay gis nii mu ne ko ah mu ne ko pourtant yàlla daa kontaan mu mel nii kon su meree nag nan la war a mel allahu akbar xoola keroog dënu bi li mu yee ci waas ay ay millions yi nit ay millions yi nit la dënu bi yee da ngeen yaakaar ne géejawaay kese la dënu ah da nga yaakaar na fii la yem nga dem université ñu ne la moo ñu yee ah ki ne Saint-Louis moo ñu yee wallaay sunu borom du moroom la ilaha illallah sunu borom du moroom de wallahi mbokk yi sunu borom du moroom allahu akbar am nañ benn góor gu nekk fii day làkk tukulóor nee na allah so hulaaka jola xam ngeen loolu mooy la allah so hulaaka jola mu ne yàlla buñ ko ragalul da koo neex yàlla suñ ko ragalul da koo neex de billaahi da koo neex yàlla bu ko neexoon seconde ñëpp ragal ko seconde ñëpp def li mu santaane seconde yàlla dooleem xejul ci ñun yàlla mbugalum xejul ci ñun xoolal dënu kese la dënu ñëpp tiit ñëpp jóg toog ku ne di tudd yàlla waaw ñëpp yeewu kenn mënutul nelaw allahu akbar kooku asamaan kese la bu yàlla woon ne day day wàcc asamaan suñu kaw nag mu ne woon géej gi na ñëw nag mu ne woon suuf na wëlbateeku wala mu ne day wàcce jant bi suñu kaw benn dënu ñëpp yeewu ku nekk toog keroog benn waaye daf may nettali Italie tremblement de terre benn sénégalais nee na keroog bi affaire yi ne gërëng gërëng ñëpp tiit nee na moom mu langaamu ci benn pied di jàng ayatul kursi mu ne tubaab yi dañoo toog di jàng ayatul kursi comme moom ba pare naan ko waxal ci kaw allahu akbar ndeysaan allahu akbar wallaay mbokk yi allah sofulaaka jolo yàlla buñ ko ragalul da koo neex de yàlla du moroom yàlla boroom la yàlla du moroom wallaahi xooleen borom bi subhaanahu wa taala lu mu wax ci alquran mu ne ëllëg asamaan ak suuf dama koy lem téye ko ci sama benn loxo bi sama sama loxo ndeyjoor wa samawaatu mutwiyaatun bi yamini damay lem asamaan daal di koy téye sama main droite allahu akbar bi yamini asamaan yàlla ngëb ko kon yàlla na la toll ah ñu ne boo bëggee xam yàlla mooy kan da ngay dugg avion avion bi naaw ba kaw asamaan nga dindi sa jaaro bi nga takk sa baaraam nga sànni ko ci suuf nga yërnu fenêtre bi ngay xool jaaro bi fu mu daanu ci kaw suuf lan la fi occupé noonu la arche toll ci kursi kursi noonu la toll ci suuf si te foofu la yàlla nekk kon yàlla nu mu toll maanaam jaaro boobu noonu nga koy xoolee ba mu ñëw ci suuf si fi di dal est-ce que di nga ko gisati bi nga ko bàyyee muy dem lay réer ci yow dootoo ko gisati noonu la arche mel ci kaw suuf noonu la ko ëppee kursi yi fa yàlla nekk noonu la ëppee arche kon yàlla nu mu toll doomu aadama mbindeef mu ndaw nekk fi di ko tooñ waaw mooy mooy li xale bi defoon rek xale bi daa fekk gaynde ci ci ci àll bi daal di jàpp ci nopp yi waaw gaynde gi topp ko rek boo mën a indi mu papa ma ngi am seen ko daw yéeg ci kaw mu naa leen papa indi naa leen mbaam ñu ne ko laa ilaha illa allah yow xanaa xamoo lii mu naa la la kii mbaam la yor yatam nag naan day dóor diril ci biir bi nga nag di ko xool rek paa bi ak yaay ji moom nekk fële ci kaw naan ko bàyyi ko mu dem foo ko jëlee dawal ñëw fi gaa yi xool xale ba jaag ne ko xamoo ma ñii ñoo ma xam yow xamoo ma xamoo ma yow yow xamoo ma ñii ñoo ma xam yow xamoo ma allahu akbar wallahi ñun tamit xamuñu yàlla xamuñu yàlla yonent yi ñoo xam yàlla yonent yi ñoo xam yàlla ñun xamuñu yàlla ndawaxe xamuñu yàlla allahu bima taamaluuna xabiir yàlla nee na lépp lu ngeen def xam leen ne xam naa ko xabiir xabiir lépp laa xam mu ne wala junaaha amul bàkkaar aleykum ci yéen fii maa ca la nga xam ne arattum bihi gaaral ngeen ko min xitbati nisaa ci labal jigéen ñi labat leen laa junaaha aleykum amuleen bàkkaar yéen góor ñi laa isma aleykum fi taaridi duna tasrix bil xitaab amuleen bàkkaar ci jigéen joo xam ne day ténj ngeen dem di ko junju mbirum bëgg te leeralu leen amuleen ci bàkkaar ñëw naan ko yow day ku la takk am jabar yow moom ku la takk am soxna waaw dëgg-dëgg waaw ñi mel ne man moom xam naa ne bu ñu la amoon moom ha pare waaye nag foofu nga yem loolu la la lislaam may amoo droit passé ci yu ëpp yu mel noonu ba mbir mi di leer nag yàlla sax ci kanam dina dégg mu ne ah am na ci ñoo xam ne sax ci yéen ah munuñu munuñu ko munuñu ko muñ danañ wax topp di neexal di neexal ba ni ko tëll nag ndax dañoo war a taxle laa junaaha amul bàkkaar laa isma aleykum fi taaridi duna tasrih bil xitaab kama laa isma fi idmaari raghba fi nafs waaw yàlla subhanahu wa taala xam na nit ñi moo tax mu ne wala junaa amul bàkkaar aleykum ci yéen fii ma arattum ci li ngeen gaaral bihi ci moom min xitbati nisa ci labati jigéen xitba gis ngeen xitba mooy labat xutba mooy discours gis ngeen différence bi al xitba labat lan mooy labat labat mooy lan mooy da nga gis benn xale bu jigéen nga bugg ko soxna nga ñëw waxtaan ak moom pour takk ko waaye léegi nit ñi dañuy labat li Oustaz Aline Gueye rahimahullah doon wax mu ne xale yu jigéen xale yu góor yi da ngay gis kuy def cinquième li cinquième secondaire di labat cinquième secondaire di lagat di labat ku mbokkal classe ah nga gis ñaar ñuy jàng ndeysaan nekk cinquième wala ñu nekk sixième ñu naan dañuy labat xam nga ne yow waroo labat labat pare woo di labat kay ki koy def mooy ku pare wala ah labat su ko defee nag mu am ay problème yu dul jeex léeg-léeg ndaw si gis ku la ëpp xaalis ne fees dem nga naan dafa maa wor rek waru la de léeg-léeg waa ji tamit gis ku la gën a rafet daal di indi ay jalgati fexe rek ba ngeen tàqali ko yooyu la lislaam di bañ labat daal ku parewul waru ko def waaw oustaz nag ndeysaan dal na ko yàlla yërëm nee na nag léegi li xew ci sunna mooy caay-caay gu bees caay-caay gu bees waaw caay-caay gu bees la ci gaa yi dugal labat jigéen te pare woo xam nga ne yoroo ñaar dërëm amoo sax néeg boo ko dugal nga naan da ngay labat suñ la ne woon ñëwal tey ñu may la ko da nga naan xaar ma dem woo sama pap xaar ma dem seeti sama nijaay xaar ma téléphoné sama frère bi nekk France xaaral ma dem xool fi gars yi luñ ma mën a dimbali ok xam nga ne wax dëgg yàlla yow waroo sa waroo labat yow moo sax loo jëndi guro amoo sax loo jëndi guro nga da ngay labat yéen nii daal wax dëgg yàlla du diine moom te loolu daa bëri léegi de si ak a bëri ak a bëri ci dëkk bi xale bu góor boo fi gis bu dul bu ragal yàlla dëgg am na benn fii bu mu làq ci ginnaaw su guddee rek ñu jënd guwaana allo macha allah macha allah waaw non démb bi nga ñëwee xiyaam yi si sa jëlbaab bi garaaw na moom dam mu ne la wu cëkkal bi garaaw na xamis bi mbaxna bi tusgal bi sikkim bi kaala bi koppati bi ngeen di am bàkkaar rek malaaka yi bind rek allahu akbar sama benn waay ndeysaan nee na benn rakku jabaram ndeysaan ba am benn waaye bu ko bëgg bu guddee rek waaye jëndal ko pis boo xamante ne bu guddee mun nañoo wax parce que à part de minuit mun ngaa woote même boo amul crédit mu ne bu guddee rek bu ñu nelaw rek moom muy dégg ngunum ngunum ngunum ngunum ngunum ngunum bu bët set mu jaaxle mu ne waay yow benn bis rek bu bàyyi ba femme bi commencé rek mu ñëw ubbi bunt bi kër rek dugg rek jël portable waa jaay nga wax rek macha allah ay déglu rek waa jaa ngi koy déglu rek mu yor rek mu ne mu wax waa ji daal di énervé rek daa ne ndaw si kii kan la rek waa ji daal di ko xam nga loolu du diine seytaane moo lay nax rek jekku la di yàq sa pas-pas waaw nga defe ne nag yow yaa ngi ci diine wala kenn nekk fi kenn gisuma fekk wallahu bi ma taamaluuna xabiir kenn gisuma maa ngi sama biir néeg moom kenn gis ko mu ngi biir néegam di nee na bët day njaalo lan mooy njaaloom xool nopp day njaaloo lan mooy njaaloo déglu yaa ngi déglu rek moo tax yàlla ne jigéen ñi bu ñuy wax bu ñu rulle ay air ndax ñi feebar li yatma alladi fi qalbihi wa qul na qawlan léegi nag bu ndaw si tëddee jaaxaan nga jaaxaan yeneen nga kontaan sa xol di fiix ba fajar jot nga yaakaar ne yaa ngi ci dara fekk ci njaaloo nga fanaan loolu yéen lañ ci yàlla musal yooyu mbokk yi ay mbir la yoo xam ne kenn ku nekk da nga war a xeex ak sa bakkan pour génn ci waaye nag seytaane mooy ñëw di la ko taarul di la ci jéem a dugal ba nga dugg ci nga defe ne yaa ngi ci dara fekk nekkoo ci dara borom bi nee na amuleen bàkkaar ca ñoom la ñuy def li ngeen di def yéen pour labat jigéen aw ak nantum wala ngeen di nëbb fi anfusikum ci seen bopp wala ngeen nëbb ay mbir waaw waaw nëbb mbir mi lan laa nëbb mooy man ka damaa ñëw jaale si wala damaa ñëw seet si indi saaku ceeb saaku dëw keesu dëwlin suukar gorosu suukar indi beurre indi indi ñëw na xale yi sama doom yi laa seet si sama doom yi léeg-léeg gis paa bu ne sama doom yi laa seet si parce que ñii seen baay sama wëllëre la fekk yaa gën a tey ne seet si woo doom yi yow xam nga li nga seet si waxal dëgg xam nga ne sa saaku ceeb bii defoo ko ngir yàlla bu keesu dëwlin bi du ngir yàlla beurre bi du ngir yàlla cinquante mille yi nga ci boole du ngir yàlla da ngaa bëgg a def nii rek pour femme bi ne ah kii de kii de ah kii indi lii ah kii de ëllëg ak moom ii xaaral ba ma pare. waaw léeg-léeg sax femme bi woo la gëj nga fi salaamaaleykum alaaji amay rédoo de ah yàlla xam nañu de yàlla moo nu xam wallaahi allah ya'lamu man xalaq wal latiful xabiir yàlla moo nu xam billaahi yàlla du suñu morom xam nanu ñi dañ koy def yàlla xam ne dañ koy def waaw yàlla xam ne am na mbir yu ñuy nëbb ci biir waaw mais ci kaw xale yi ñoom waaw day seen yaay woo leen waaw seen kii mu gis ngeen kii kii moom xarit dëgg la gis ngeen gis ngeen li mu indi booy waaw waaw moo tax ëllëg ak si biir bu maire bi ne waaw man de wax dëgg yàlla seen papa diw xam ngeen ni moom boobu ba léegi ah bi paa bi dee ba léegi ceeb manqué wul diwlin manqué wul suukar manqué wul léegi nag moom neen daf ma bëgg lu ngeen ci xam ah xale yi li ñuy wax paa bi wàññi ne leen bu yàgg yu nangu takk rek kaay daa takk ndeysaan allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala la ilaha illallah mu ne aw wala ak nantum ngeen di nëbb fi anfusikum ci seen bopp ay mbir yooyu yëpp alima allahu yàlla xam na annakum yéen sa tazkuruhunna di ngeen ko wax jigéen ñi am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw di ñëw di ñëw ba jàgg ñu ne wax dëgg yàlla dama laa bëgg a takk waaw xool man xam nga ne soob yàlla ma la takkee naa la jàppale waaw naa la jox xaalis ngay commerce sa doom yi naa leen dimbali ñu tukki wala naa leen fayal seen njàng yàlla xam na ni am na ñoo xam ne du ñu mën a muñ de di junj déedéet ñoom dañu yore na tul affaire bi say foog ñu wax ko alim allahu yàlla xam na annakum am na ci yéen ñoo xam ne ah foog ñu wax leen ko sa tazkuruhunna dinañ ko wax mubdiina raghbatakum danañ feeñal seen bëgg-bëgg danañ ko feeñal fi ziwaaj ci takk ndaw si minhum ci ñoom waaw kon nag yàlla xam na loolu yàlla xam na ne doomu aadama moom bëgg-bëggam bëgg-bëggam du ko nëbb mukk góor wala jigéen aka néew aka néew góor bëgg dara te waxu ko aka néew jigéen bëgg dara te feeñalu ko jigéen bu la bëggee boo ko seetsee rek xam na ne xam di nga ko xam wala du ko xam doo ko xam ah foog mu manifesté wu sawet waaye bu la bañee boo ko seetsee mu manifesté wu wala ne dama laa bañ maadaama yàlla xam na loolu loolu moo tax yàlla daal di koy yombal daal di koy yolomal pour balaa ñuy am bàkkaar parce que yàlla xam na nu ñun ay doomu aadama lañ xam ne danoo manqué du nu topp bu nu toppee ci lu bëri rek kenn ci ñun du rëcc moo tax yàlla mu ne waaye nag comme may naa leen loolu lépp nag ah walakin waaye laa tuwaayiduhunna sirran waaw bul repp nag bañ ne ko dama lay takk dégg nga dama lay takk dégg nga de waaw maa fi nekk ku ñëw dàqal loolu nag moom bul fa yegg maanaam mën ngaa jaar ci yee ñu doon wax sànq ceeb beeg diwlin beeg ay macha allah yow koy xam naa ne moom ku ci njëkk moom yow koy xam naa ne yooyu yëpp na nga yem ci yooyu nag waaye jékki-jékki nag ba iblis jàpp la dama lay ñaan rek wax dëgg yàlla waaw man xam nga ne gaa yaa ngi ñëw meem xam nga ma man maa gënoon nekk sa xaritu bu aaj waaw te man mii bu yeboo rek nga xam ne man boo kee rek ma ñëw ah loolu boobu ëpp na moom bu ko tudd moom parce que yàlla moo la ko tere moo tax mu ne walakin waaye laa tuwaayiduhunna bu leen dig jigéen ñi sirran ci secret yéen ñaar rek nga ne ko dama lay takk bul ko def illa lu dul an taqulu ngeen wax qawlan wax maarufan ju baax njekk mooy lan ah comme li ñu wax sànq ku la am am na jabar ju baax ak yow jigéen ju baax ci kër nga ak ndax nangam ak nangam yem leen foofu mais bu leen ko ko dig gis ngeen baatu maaruf ñëwaat na kii labat ñu ne la na nga rabat ci maaruf kon booy sëy mais sénégalais yi mënuñu sénégalais yi mënuñu sëy lan lañ mën doxaan mooy labat loolu lañ mën sénégalais mënu sëy mais labat la mën dox loolu la labat lañ naan doxaan waaw da ngay gis ci jamono seddaay nga ànd ak ki ngay labat yéen ñaar sedd bi métti mu ne la dama liw nga dindi costume bi ko am def sëy mi si kese la si leen maa kese ne nii nag di jaagar jaagar yi waaw lëndëm gi lu ne kërëj nga ni nii avancé ci kanam bu dee kër ga la bi nga ko takkee ba pare lu ne kërëj nga ne ko jógal xool lool lan la waaye daa jógal xool lool gumba jógal xool lool la waaye ah mu ne la ah man maa koy xoolal nga waaye xoolal rek ah gis nga lu tax sa fit bi génne woo ko tey ah bu fekkee yaa ngi labat ndaw si ne la yàpp laa bëgg looy def ngay jënd non tey dama namm dibi nooy def dibi dana la jara nga dem Dakar romb dibi yi ci Géejawaay yëpp ak Pikine dem ba Dakar ah jënd fa dibi boo xam ne këyit bañ koy àmbale palaat bañ koy def musuwaar booy fompoo boo ko wanee rek yooyu ñoo njëkk ñoo koy njëkka ñoo koy njëkk a jaaxal nga indi ko waaye bu fekkoon ne takk nga nag mu ne la dama dama na mu yàpp loo koy wax kaay lekk ma man de maa fi yàpp maa ngi nii ñoo lekk ma nag ya lekk loolu la nga koy wax damaa na mu yàpp nga ne kaay lekk ma bi nga ko takkulee bi mu la ne damaa na mu yàpp dangaa wuti yàpp wala alay si ka kon mënuñu sëy xale yu góor yaa ngi nii ku fi bëgg benn xale bu jigéen nga dem këram nga fekk ko muy waas mu waas ba pare mu ne la waaw dooma gasal fee benn pax ma tuur waas yi nga ne ko amul benn problème ana pel bi rak tak ñëw jagar jagar yi ci digg mbedd mi dóor gas boo takkee ba pare bu la naw si noonu gasal ma waxuma gasal ma tuural ma mbay mi loo koy wax te bu fekkoon ne yaa ngi koy labar nga ñëw fekk ko muy tuuri mbari yor pollu bi pollu bi am ñaari jàppukaay loo koy wax jàppal nee ma jàpp nii bu fekkoon ne da ngaa takk ba pare nag nga ñëw fekk ko muy tuuri loo koy wax yanul yanul li waa yow commencé di ñàngal lu tax woo ko jàpp nañ jàppoo gis nga lu tax yow bi ngay labat ngay neexal bi nga takkee nga commencé di ñàngal te bi ngay labat li nga doon ut kay ba am ko bi nga ko amee noo war a def da nga ko war a jàpp fonk ko mais sénégalais bu ñuy ut ba am waa ji nee na seet bu sëy see ci kër premier jour deuxième jour troisième jour quatre bu ñu koy yee ndànk la ñuy dem ndànk bu ñu koy yee ndànk lañ koy yee ndànk waaw ñu koy raay bu fa amee un mois nag trois mois deux ans six ans suñ koy yee nuñ koy yee ñu koy rëkk vip waaw benn rëkk ci ndigg li mu tëb lii lan la ñu ne ko jógal jógal léegi maa ngi lay yee jógoo pourtant seet bi bi mu ñëwee démb ci guddi nga koy yee première kàddu gi nga ko wax da ngay ñëw ba ci noppi bi di ko raay di neexal gis nga ah allahu akbar lu tax defoo noonu ke wala wala voilà kon nag seet da nga war a jàpp ne kii def na fi 6 ans waaye ba léegi seet la sa soxna la yaa ko indi ba léegi da nga ko war a neexal di ko jàppale comme ba la bu fekkee yow bi nga bëggee rek ngay neexal di def maaruuf bu xasee ñëw ci kër gi maaruuf jeex na léegi kurfeñ la ak mbëkk ak sone mais sëy bi du neex ñun nag bu ñuy labat maaruuf bu ñu labatee ba pare kurpeñ mooy ñëw ak ay mbëkk ak ay sone waaw bi nga takkagulee ndaw si saay la wooy téléphone ne la ma nga gunge ma sama kër pap nañ dem aw nga gunge ma sama kër maam nañ dem dama bëgg a dem kër diw nañ dem dama bëgg a dem sorti nañ dem boo takkee dangay toog deux ans ndaw si ne la mais dama ko suñu kër papa da nga lu njëwti waaye waaye dimbali ma ah alors gis nga lu tax lu tax kon loolu mooy suñu problème te loolu moo tax sëy yi naqar yi te sëy du fulla moo koy joxe du personnalité moo koy joxe du du du du du su ko defee mbokk yi nañ bàyyi xel loolu du hasard rek ay buñ jël sunu borom subhanahu wa taala di ci wax maaruf maaruf maaruf borom bi ne subhanahu wa taala wala taazimu bu leen dogu uqdatan nikaahi ci fas fas fasu sëy bi xataa yabluga alkitaabu ajlahu ba mu mat xataa yabluga ba mu mat alkitaabu téere ba ajalahu diggam loolu mooy lan xataa tantahi al idda mooy ba idda gi jeex jigéen ñi di tënj nga naan da ngay takk nañ takk waay nañ takk ndax vraiment man dama yàkkamti nañ takk rek déet wala taazamu bu leen dogu yàlla nee na bu leen dogu uqdatan nikaahi ci takk sëy bi kuy tënj kenn du ko kenn du ko kenn du ko takk ku ëmb kenn du ko takk ku nekk ci idda kenn du ko takk bépp jigéen bu ñu takk ci idda sëy bi daganut bépp jigéen bu ñu takk ci biir ëmb sëy bi daganut bépp jigéen bu ñu takk ci idda sëy bi daganut moo tax yàlla di leen tere ne bu ñu dogu ci takk sëy bi xataa yabluga ba mu mat alkitaabu idda ba ajalahu diggam dañu bàyyi ba idda bi jeex ba ndaw si simmi ñu daal di ñëw doog a takk sëy bi borom bi ne waalamu xam leen na ngeen yëg anna allaha naka yàlla yaalamu xam na maa fi anfusikum li nekk ci seen biir fahzaruhu mooy tandiku leen ko allahu akbar yàlla dafa avertir dafa yëgle dafa xabaar ne moom yàlla xam na li nekk ci sunu ñum ku nekk li nga denc yàlla xam na ko mbokk yi ndax fii ma toog xam ngeen lu ma denc sama xol kan moo ko xam ci yéen da ngeen xam ne damay toog fi tafsir bu guddee ma dem ci soirée yi bu tisbaaree ma ñëwaat toog fi dajeeg yéen xam ngeen ci dara lu ngeen ci xam ku ci xam dara xamu leen ko de yéen it fi ngeen toog ni lan laa ci xam dara lu la ma rafet njort rek ne ay jullit yu baax ngeen yu sell xam naa leen ay at gisuma leen ngeen def lu bon kon ñu baax ngeen loolu kese la waaye yàlla nag moom lépp leer na ko ah toog waaye moo ne mu ne moo ñii di tafsir ñii moo ñii di bandi yàlla xam na moo ñii di ñëw nii moo ñii ay bandi lañ yàlla xam na ndeysaan waalamu xam leen yëg leen anna allaha naka yàlla yaalamu xam na li dafa leer lan maa fi anfusikum li nekk ci yéen xam naa ko nit nga mën a nëbb waaye mënoo nëbbu yàlla ndeysaan kenn mënul nëbbu yàlla ci ñun lépp la yàlla xam maa yakunu min najwa salaasa illa wa huwa rabi'um yaalamu xaainata al ayun wa ma fi tuxsir yaalamu sirra wa wa axfa lépp amul lu nëbbu lu yàlla xam na yàlla xam na xobu garab yi yi tooy yeeg yi wow yi xam na yi wadd xam na yi waddagut xam na jigéen ji ëmb malakal mawt imam malik dafa mës a gént mu gis malakal mawt mu ne malakal mawti ñaata at moo ma dese ma dee malakal mawti ne ko nii mu ne ah lii mbaa du juróomi seconde mbaa du juróomi minute mbaa du juróomi fan mbaa du juróomi weer mbaa du juróomi semaine mbaa du juróomi at muy daw di laaj fu mu dem ñu ne yaa ñooñu ne ñun xamuñu ko nii daal la la def mu ne ah mu ne ah ñun xamuñu juróomi daal la nag en tout cas juróom la waaye xamuñu ko ba mu yegg ci benn borom xam-xam bu mag kooku ne ko lim la wax nii daf laa wax ne dafa bokk ci juróom yi nga xam ne moom xamu ko juróom yooyu yàlla rek a ko xam hmm? fan la nekk juróom yooyu ci ban saar la nekk suratul luqman ubbil ubbi luqman ubbi luqman feewu luqman juróomi aaya yooyu yàlla rek moo ko xam kenn xamu ko ku dul allahu subhanahu wa taala fan la tàmbale inna allaha indahu ilmu saa yàlla moo xam bés pénc ci kañ la ilmu sax la utiliser ilmu xam-xam bés pénc ci kañ la acca yéen ñu nekk jàkka ji kañ la bés pénc Sénégal nag li gars yi di kannasu nag di mën a wax nag doo ci dégg ku rakkaaju nag naan waaw bés pénc xam naa kañ la nag loolu moom gis ngeen de ah 21 décembre gis nga de gis nga de waaw gis nga gis ngeen de fu mu mujj bii di ñëw nii lañ wax kon nag gars yi pare leen ndeysaan gis ngeen de chaque jour waxkat yi ndeysaan wax rek inna allaha indahu ilmu saa bu ci tegu wa yunazilul xayb taw fan lay taw ah kañ lay xiin kañ lay taw fan lay taw dafa xiin fii géejawaay est-ce que géejawaay mooy taw léeg-léeg nga nekk ci oto ngay génn pikin ak géejawaay waaye géejawaay di taw pikin tawul oto bi xoolal danaan nii nga bàyyi xoolal da ngay gis ku ne nii rek nii ci benn mbedd su ko neexee mu tooy bu ko neexee mu wow ñii di taw ñii tawul allahu akbar fa yunazilu lgays wa yaalamu ma fi l arxam li nga ëmb kañ lay juddu léegi sax tubaab yi yem nañ xeex def effort ba xam li nga ëmb lan la góor mbaa jigéen waaye li leen te mooy kañ lay juddu ban minute acca guddi wala bëccëg acca ndeysaan gis ngeen yàlla xam kii ci biir bi kañ lay judd naka lay juddoo buy judd day dund wala day dee yàlla moo ko xam wa yaalamu ma fil arham xoolal baat yëpp lan la yàlla utilisé xam-xam baat yëpp baatu xam-xam la yàlla utilisé parce que xam nga lu tax ku xam lu tax mbirum xam-xam la mbirum kumpa la xam-xam la moo tax yàlla mooy yàlla lu ci déggu wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut maza taxi bu xodoo la ngay am suba aja moo tax alku weesuwul nga dem ci benn waay mu lay seetaan kuruj kuruj ah yow de di nga tukki kuruj kuruj di nga am alal de kuruj kuruj waaye nag bala ngay am alal di nga sonn de kuruj kuruj di nga sonn trop trop trop trop su ko defee nga commencé tiit nag waaye nag man mën naa la cee génne gis nga mu ngi lay bëgg a lekk gis nga mu ngi di mu ngi lay bëgg a lekk léegi nan la lay ciy lekkee mooy comme nee na la di nga sonn trop te comme gis nga fu mu njëkk mooy di nga am alal xam kontaan nga waaye nag alal ji day wax dëgg yàlla dafa am lu ko téye dafa am ay gàllankoor yoo xam ne bala nga ciy jot wax nañ ma ne da ngay sonn trop trop dafa laaj rek nga génne ay ñaan ak ay sarax yoo xam ne man boo ma joxee sax mun naa la ko génneel waaw benn nag bu ñuy rey la nag ñaata lay jar minimum deux cent mille ans ak benn kuy kuy ñaata lay jar ak benn duurisa ganila ñaata lay jar bu weex taal ñaata lay jar benn waaye boo xamante ne benn waaye ko doon nax fekk ko aéroport rek te waa ji chrétien la billahi wallahi taala chrétien benn waay fekk ko aéroport mu dimbali ko rek waa ji daal di jël numéro téléphone am na ko yow naa la defal affaire quelques fan mu woo ko téléphone ne ko yow dama bëgg xamante yow parce que dama ñëw aéroport am problème nga dimbali ma dama la bëgg a dama bëgg a yëkkati sa sa martaba maanaam foofu nga nekk damaa bëgg nga nekk chef bi mën naa ko mais léegi xam nga nooy def da ngay jënd 100 mbaxna yu weex 100 mbaxna yu weex nga saraxe ko waa ji ne ko sër man vraiment aw ma jot léegi mu ne ko garaaw indil ma xaalis bi man dinaa jëndal saa mbax nay saraxe ko mbax ne bu saa mbax nay weex mbax ne bu ne 1000 francs ñaata la du loolu gars yi di jaay mbax nay weex yi 1000 francs gis nga waa ji de du ñett 100000 indi mu toogaat une semaine ne ko il faut nga jënd nag gis nga waa ji semaine bu nekk waa ji woo ko semaine bu nekk waa ji woo ko semaine bu nekk dina génne 100000 ba waa ji sonn xaalis mu calculer affaire bi dem ay 800000 mu ne xam nga lan la kii ñaanam beeg poste bi doy na sëkk yemu ci mais waa ji dafa dem police daal di koy signaler ne waa ji lekk na ci man 800000 police parcelle ñu ngi may dégg de biñ ma woowee rek ma wooyi waa ji lay woon ne policiers yi ay bandi lañ ñu ne waa ji ñaata la lekk ñaata la sëriñ bi lekkal mu ne 800000 gars yi daal di bind 1 million ne ko 200 yi ñoo ko moom sa yoon nekku ci gis ngeen ñu ne ko léegi woo ko téléphone ne ko maa ngi indi xaalisu nag bi mu woo sëriñ foo nekk mu ne maa ngi maa ngi place sànga mu ne xaalisu nag bi laa bëgg indi mu ne bismillah ñëwal mu ne yaa ngi fa génnoo mu ne déedéet mu ànd ak police yi egsi dugg 30 secondes rek police yi egsi génne seen carte ne ko police ñu mënote ko dugal ci oto bi acca waa police mu yegsi ñu ne ko 1 million boo ko fi indiwul ci giri bi lañ la jëmee tëdd mu jël téléphone am commencé di woo ay mbokkam dama am problème de mbokk yi daal dajaloo balaa deux heures de temps ñu dajale un million ñu jox police yi ñu jël neuf cent mille jox waa ji waa ji ñibbi mu ñibbi ñu séddoo seen deux cent mille gis ngeen léegi nag ñu ne dëkk bi na am yoon ñiy doxal yoon wi ñooy jalgati yoon wi boo demee ci douanier yi noonu la dañuy jàpp fraude waa ji génne un million ne am leen ñu ne ko xam dañ laa jàpp mu ne d'accord ana seen chef ñu ne ko mu ngi ne mu ñëw ne ko cinq cent mille ngi ni mu ne ko jaajëf eh gars yi laissez-le laissez-le allez waaye ñëw naa leen gars yi jàpp leen jàpp leen ci paquet du jimbo yi ku nekk benn bu demee jox sa jabar ñoo leen un million ngeen di dof dof la bu nga ni xam nga ñaar laa ko jox cinq cent mille yeneen cinq cent mille yaa ngi ne ciao bye bye ëllëg ak si biir bu fa waa ji jaaree yor cent mille gars yi ni ñuy def benn ministre ministre ministre laa leen wax de ministre la hawla wala quwwata benn waaye bëgg a def trian trian de ah chef de cabinet bi bañ bañ non temps laa la bëgg a jox pour ma gagner marché bi waa ji ne ko mukk du ma ko def mu yéeg dem ci ministre bi ministre bi daan ne waaj eh mu ne mu ne ana kayit yi mu ne mu ngi mu ne yéegal ko ci kaw mu yéegal ko mu signé ko waa ci ne ko xoolal eh xam nga la pindi kayit yi man maa koy signé ah fi kayit ñëwatee na yéeg ah xoolal gis nga ah ah na jërëjëf chef Sénégal a ngi nii du dem dañuy sonal suñu bopp du dem parce que nit ñi jubuñ ragaluñ yàlla ku nekk fi nga toog yaa ngi xool am am yaa ngi xalaat poste bi balaa ñu la koy bàyyi même bu dee ginnaaw suba na nga denc benn 6 milliards bu ndaw 6 milliards bu ndaw quoi booy naanee ataaya waaw léegi na am na benn sëriñ bu sàccoon xaalis Sénégal gars yi di ko laaj xaalis boo ko dugal mu ne warga laa ci jënd suukar si sax matut warga rek laa ci jënd suukar si matut warga ñu ne ko ah mu ne warga sàllaaw warga kese laa ci jënd su kër si ñu ne ah mu ne matut fu ñu jëm fu ñu jëm Sénégal fu ñu jëm du dem dañuy sonn mais du dem waaw du dem de leen dong mooy tax mu dem ngeen teg lislaam ci kanam kese kese kese lii fi daal di baax waaye ñii nii ñi nga xam ne Jean ak Paul ñoo leen yar ñoo leen jàngal waaw nu ñuy lekke xoolal fi mu nekk nii liñ ñuy lekk ci xaalis kenn xamul lu mu toll soo demee SDE di fay dañ naa la timbre deux cent wala ana timbre bi nga dem Senelec ñu ne timbre 200 nga dem Sonatel ñu ne timbre 200 loolu ñaata la ñaata la ah même banque booy retirer sa salaire dañ ciy tiir xaalis dañ la ciy dañ lay dagg maanaam mënoo muus ak waane ba tubaab bi du lekk sa xaalis même bu ñu lay lebal xaalis ah dañ lay légali légaliser loo ay kayit nga dem di jënd ay timbre fii légaliser fii dem signer fële téeb da ngay fay te xal dañ lay lebal de ci li ñu lay lebal ñu ngi la ciy lekk jox jotagoo ci ñu ngi lekk waaw caution assurance nga jékki-jékki ñu ne non il faut nga fay 300 300 000 assurance 50 millions lañ lay lebal de ñu ne la nga fay 1 million assurance ñaata lañ ci lekkagum te boo ko si ñëwul duñu la lebal nga ni garaawul déjà lekk nañ 1 million. foo jëm fu ñu jëm ay yoon yoo xam ne yëpp tappale la yëpp tappale dara baaxu ci dara jubut ñun nag ñu bàyyi suñu diine boo xam ne lépp la ñu jàngal tere ñu riba tere ñu yooyu yëpp ah yëpp ñu tere ñu ko te terewul ñu ngi nii tey suñu dara baaxu suñu borom subhanahu wa taala nee na wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut bakkan kenn xamul fooy faatoo gis nga juróom yaango kenn xamul fooy faatoo ku xam fooy dee ñun ni yëkkati sa loxo benn waay malakal mawti dafa ñëw ziar si Suleymaan baytul maqdis ngeen malaaka buy wàcc kaw suuf su fekkee yonant mu ngi foofu day dem ziare ji ko malakal mawti wàcc ci Suleymaan baytul maqdis rek fekk fa benn waay boo xam ne yàlla da ko ne woon demal indi rey waa ji te rek malakal moo daal di tiit xulli waa ji bët rek waa ji daan ne Souleymane waxal waxal ngelaw la mu yóbbu ma ind kii bëtam yi may xulli dama ko ragal kii ñemewu ma ko nekk malakal mootu bi mu xullee waa ji bët def ko wax ci biir bët ne waruma laa woon fekk fii kii lu muy ut fii kii waruma ko fekk fii lan la fii def nekk bët yi loolu la ko wax instant bi ind la ko waroon fekk pour mu dee Souleymane ne ngelaw la yóbbul ma waa ji ind ngelaw li na waa ji cas ni ko cëpp ind fekk malakal mawti taxaw ne ko fii laa la waroon rey moo tax ma tiit xulli la bët daal ne roseet ruu bi yóbbul yàlla dañu laaj malakal mawti ndax mas nga tiit mu ne waaw kañ la woon mu ne benn buur laa fekk ñu garde ko ba weñ ñemewul rek teg ci kawam ñu weñ yi dinaaw ñemewuñu wàcc moom yàlla ne naa ko rey mu ne ma xam ne keroog bi may jël ruu bi bu ma gaa yi gisoon duñ ma jàppee du baax keroog tiit na ñu ne ko ndax mës nga am yërmande mu ne waaw waaw ñi ngay rey ndax mës nga ci yërëm kenn mu ne waaw ñu ne kan mu ne fekk naa benn jigéen buy mattu ci àll bi moom kenn dafa taxani woon ëmb di uti matt mu dem ba ci digg àll bi asamaan bi xiin dënu yi di dënu muy taw mu lëndëm melax yi commencé car dëng ndaw si piig mat jàpp ko mu nekk ci àll bi moom kese di mattu ndox mi taw ban bi di walangaan suuf si ñuul seeg ndox mi jaxasoo yàlla ne ma la gël moo di demal nga rey ndaw si nee na keroog bi ma ñëwee di jël ruu bi yërëm naa xale bi yàlla ne ko xale boobu nag moom laa yar ba mu nekk buuru dëkk boobu nga demoon rey ba tiit ragal ndaw si bi mu amee doom ba pare sàmmkat bi moo ñëw fekk foofu dem woy waa dëkk ba ñu yeenu xale ba yóbbu xale boobu màgg gouverner dëkk ba wala de kenn ñi kenn kenn ñu garde ko ba kenn ñemewu ko laal yàlla ne malakal mawti dama nga rey ko mu ne ko kooku moo doon buur boobu moom la yàlla sàmm ba mu màgg jiite dëkk boobu gis ngeen yàlla kon juróom yi kenn xamu ci kenn amu ci xam-xam yooyu la malakal mawti waxoon ni waa ji ne ko nii mooy juróom yi nga ma laaj xawma ko ndeke malaaka yi sax am na lu ñu xamul Sénégal nag gaa yi lépp lañ xam lépp lañ xam lépp lañ mën dangay gis benn waaye mu ne la man l'homme douze métiers lépp laa mën koo woone ko lii laa bëgg ko ma ko defaral mu ne garaaw indi ma xool wala mu ne la mënu ma ko indi ma xool dégg naa barki démb ci rajo bi benn mécanicien bu bindal benn femme ordonnance déglu leen ko wallahi maa ko déglu TFM revue de presse TFM wallahi maa ko dégloog sama nopp waaw ñu ne benn mécanicien bu bindal benn femme ordonnance waa ji dafa wax ba pare di ree mu ne ceey kon ni ko yaayaay ree de mooy ñun mooy ñun lépp lañ mën doo wax benn sénégalais lii laa bëgg ba mu ne la woo ah lii de wax dëgg yàlla mënu ma ah lan lii nii lañ naa mun a indi ma xool mosu ko liggéey mais yaakaar naa ne mën naa quoi indi ma jéngu ko indi ma jéngu rek ñëpp ay jéngu ndeysaan benn maire dafa amoon néegam quoi defar ko ba pare daal di di ut ku koy peintural gis benn waaye ne dama bëgg ko ma peintural mais bi ne ko waa ji ne ko indi waa ji peinture ci kaw ñu ne normal na de mu peinture côté néeg yi ñu ne normal na mu peinture dër bi peinture bi lépp a weex lépp a weexal maire bi dugg rek waaw lii rek mu ne ko maire lépp laa weexal maire bi yéen doo raxas te di ko saaga di raxas rek laa lii ne kenn mosu koo gis peinture bu peinture dër waaw gis nga loolu mooy kooku xamul xam nga ne daf ko jéng bis boobu rek mais xam nga ne xamut kon nag nañu xam ne yàllaa xam lépp waalamu xam leen anna allaha yàlla yaalamu moo xam maa fi anfusikum li ci seen bopp lépp lu ñuy nëbb yàlla xam na ko fahzaruhu mooy tandiku leen yàlla comme yàlla xam na lépp mooy tandiku leen ko mu ne waalamu ngeen xam anna allaha yàlla gafurun kuy jéggale la waaye xalimun ku lewet la gis ngeen aaya yi ba tey dafa bokk ci aaya yoo xam ne daf ñuy delloo si yaakaar yàlla bu la tiitalee wala mu wax la loo xam ne après daf lay delloo si ne la man yàlla subhaanahu wa taala day xafuur damay jéggale waaye xaliim ku lewet laa yàlla soxaru xafuur day jéggale ay bàkkaar gis nga ñu ngi ci guddi yi ñuy wër laylatul qadr lan mooy ñaanu laylatul qadr allahumma innaka afuwun karimun xalimun tuhibbul afa faafu anni wa fi riwaaya allahuma innaka afuwun tuhibbul afa faafu anni wa fi riwaaya allahuma innaka afuwun karimun xalimun tuhibbul af xalim mooy ku lewet lan mooy ku lewet ci Sénégal bu ñu ne diw dafa lewet suñ ne borom kër gi dafa lewet njabootam leen neex def soxna si de dafa lewet leen neex def sam waa ji de dafa lewet patron bi de dafa lewet employé lu leen neex def ah commissaire bi dafa lawet ku lawet lu mu jiite rek lépp baax kon yàlla bu ne man dama lawet xalim kon luñ ci war a dégg mooy balaa muy mbugal balaa muy def dara daf lay wax ba pare daf lay won lu baax li damay jéggale pour nga jéggalu dama lawet pour nga ut lawet gi benn borom moo xam ne ne iza qila alxilmu fa ujibu wa aqulu inna lilxilmi mawdiun wa xilmu lfata fi gayri mawdiihi jahlun mu ne bu ñu nee lewet mu ne d'accord naa de lewet mu ne waaye lewet dafa am place nekkul place yëpp la ñuy lewet nekkul place yëpp la ñuy lewet am na place yu ñuy wane lewet am na place yoo xam ne kenn du fa wane lewet mbokk yi aaye bi a ñaari aaye yi ñu doon jàng liñ ciy jëlee ci ay àtte juróom la bu ci njëkk mooy bayaanu iddatul wafaat yàllaa ngi leeralal iddaay faatu su góor faatoo ñaata weer la soxnaam di toog du sëy mooy ñeenti weer ak fukki fan wa ashara layaali ak seen guddi wa bayyanat as sunan assunnatu anna al iddatul ama ala nisf sunna leeral ne bu dee jéebéer jéebéer mooy lan mooy jaam bu jigéen moom lan mooy iddaam bu bërëm këram faato ñaari weer ak juróomi guddi bu dee gor la su jëkkëram faatoo lan lay toog ñeenti weer ak fukki guddi loolu mooy njàng mu njëkk mi ay li ñuy jële ñaareel mooy wujubul irdaadi alal mutawaffi anhu zawjaha wa huwa adamu tazayun wa massu tiib wa adamu taarudi lil xitaab wa mulazamati almanzil allazi tuwaffi anha zawjaha wa hiya fihi fala taxruj minhu illa li darura qaswa nee na borom baa ngi leeral iddaa yi jigéen ju borom këram faatu lan la war a def ay attee moom ndaw si ginnaaw ténj nan lay ténjee mooy bu mu taar taarlu bu mu rafet bu mu rafet luñ ci bëgg a wax lan lañ bëgg a wax ci bu rafet ah bul bu rafet ndax kon du sangu day sangu dañ leen a bul toilette toilette lañ la tere toilette takk ay lam takk ay kii takk ay jaaro sol yu rafet xeeñ parfum jaagar jaagari toilette sol say coquette ah di rosa di paccal di yooyu lañ la ko tere te toilette lañ tere jigéen ñi wa amatul droit def ko ñaareel ci atte yooyu aussi mooy ginnaaw taar taar boobu ñu ko tere dootul laal parfum dootul jaayu jaayu lan mooy jaayu comme jigéen ju amul jëkkër nu muy def foo ko fekk mu ngi sangu mu ngi toilette mu ngi crème mu ngi mu ngi diw mu ngi loolu jigéen juy ténj dootu ko defati ñenteel mooy mulazamatul bayti lati tuwaffiya fiha zawj fi borom kër gi faatoo fi mu nekkoon di say kër googu lay toog du bouger du fa génn lu dul mu am soxla bu dëgër comme lan dañ ko yónnee xaalis ci turam moom kenn moo ko war a tirer parce que carte d'identité am la mun naa dem poste mën naa dem place ba muy tirer jee xaalis bi wala day jaay amul ku ko xaar ci place bi te loolu lay dundee day dem comme day liggéey may ñu ko congé day liggéey day muuru dem di liggéey waaw am naa yeneen yi nag kenn sant ko di tënj ba pare di dem ay ngénteeg di dem ay soirée ah waaye ba guddi nga defaru daw dem soirée ba ñëwaat balaa fajar nga muuru xam ngeen loolu am na Sénégal ah xam ngeen loolu am na Sénégal de ah kuy tënji ëmb kay xam ngeen ne kon loolu am na fi tënji ëmb pourtant Sénégal am na sëriñ bu bu ñuy ziare di ko kii papaam dafa dee yaay ñi am am giom ginnaaw ñu ne sëriñ bi moo doon jóge ci armée li ba ndaw si ëmb déggu leen loolu kon kay xam ngeen ne jigéen di tënji fii di dem soirée waaw ndeysaan ñu ne waa ji nga xam ne moom mu jéggi sëriñ bi moo def seede ne moom am na benn fajar goo xam ne jàpp na fi sëriñ bi sëriñ baa ngi jóge ci armée li mu ne koy waaw léegi nag mu ne ko boo amee doom man la waaw ñu ne waa ji def na seede bi ndeysaan waay Sénégal ñoo yërëmtalu ndeysaan sëriñ bi nee na billaahi lii mu ne seetal ma lii rek sëriñ bi doon nettali yëf yi mu ne seetal ma lii rek mu ne waaw du yàlla dafa ne jigéen ak góor bu ñuy sëy waa ji dee na ndaw si ténj na ténj ba jeex na mu ne sëy ba tas na sëy ba tas na mu ne fan la ñu takkaatee sëy bi mu ne ba muy dem dañ koy yóbboon bi muy ñëwaat kan moo koy indi bi muy dem dañ ko solul woon ay yére bi muy ñëw ku muy jëlee ay yére yu mu sol mu ne ko am doom bu mel nii doom bi doomu njaaloo la sëriñ bi dal sëriñ bi laay nettali ay waxam de du samay wax nee na sëriñ bu mel nii sëriñ bi ku ko am sa sëriñ doomu njaaloo la ngeen naan est-ce que naan sëriñ bu am barke mu ne doomi njaaloo la loolu la sariya wax jigéen bu tënjee sëy bi jeex na su ko góor ki dekki waatee naan xee sama jabar takkaat est-ce que ku dee di nga dekki kon nag nañ leen ragal yàlla loolu mooy ñaareelu àtte ci àttey tënj doo fi toilette doo génn kër gi nga nekk doo bouger lu dul soxla bu yitteel ñetteel mooy xurmatu xitbatul mu'tad wa jawaazu taarid laha bil lafzil gayru sarix jigéen buy tënj kenn du ko labat dafa araam jigéen buy tënj du jaayu jigéen buy tënj kenn du ko labat dafa xaraam kenn du ko labat labat bu fés bu leer dama lay takk boo génnee dégg nga loolu ëpp na ñeenteel mooy xurmatu iqdatu nikah alal mu'tad jigéen buy jàpp buy iddaw kenn du ko takk képp ku takk jigéen mu nekk ci idda sëy bi def xaraam bu ñu takkoon sëy bi ñu yëg ne ndaw si idda bi jeexul sëy bi dañ koy fecc juróomeel mooy wujubu muraqabatullahi taala fi sirri wal alani dañu war a fuglanteeg yàlla subhanahu wa taala ci lu feeñ ak lu nëbb wattiqaai asbaab al mufaddiyati bil abdi ila fi'li al muharram ñu moytandiku jaam bi moytandiku bépp jëf bépp mbir boo xam ne daf koy yóbbu ci mu def lu xaraam kon mbokk yi juróomi atte yi moom la ñuy jëlee ci ñaari aaya yi ñu jéggalu sunu borom njumte yi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum allahu xeyran